سهت لي رب البرية البدل عذبت قبل من قلوني بددا سهت لي رب البرية البدل أذبت قبل من قلوني بددا أدريتني ربي بسر الولل زازاك عني هداك بولن رفعت ما زار لي وما بتن مني منورا بفضل للاتن باركت لي في من جلا وما سكن وزائري وباتني فيك سكن ملكتني ما ترت لي يا زمن وقلت لي بلا انتهاء بالأمن سقيتني ماء بغيبك ترى سفدت جملة خلاتي بخرا سعدت لي بما كفاني المهن يا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki seetaankat yi tey la fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di alxames fukki fan ak ñaar ci weeru janvier ci atum 2012 mbokk yi bu ñëw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mooy bés bi nga xam ne mooy bésu màggalu Touba. dëkk bu tedd bii di Touba xam ngeen ne Serigne Touba mi ngi ko sanc ci atum 1888. muy dëkk boo xam ne daf ko sanc ngir jaamu fi yàlla ngir dundal fi sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen itam sëriñ bi ba mu jógee rek ci la wax yéeneem mooy wa sunnatoo insha rabbi ubaynahu jóg na ngir yeesal sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dëkk bi kon bi mu ko sancee di fi dundal islaam di fi dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni itam mbokki dëkk bi ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane si woon ànd ak mboolem saabatul ci dëkk bi itam ci bés boobu itam ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa xamal ne dafa jógoon ngeen ñëw takkal ko martaba xutbu zaman Serigne Touba ci la ko xamal ne moom de loolu ndem kawe na lool waaye yitteem de jël na loolu mooy fexe ba bokk ci waa ahlul badrin yonent bi sallallahu alayhi sallam ci la xamal sëriñ bu mag bi ne ko loolu day jëf jëkko doon maye muy tuur deret faat na waaye nag su fekkente ne nii Serigne bi jóg na ngir bëgg bokk ci waa ahlu badrin sunu borom mën na koo teg ay nattu waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa xamal na sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha ne ko ñu bëri day sàkkoon nañ cër boobu waaye mujj ñoo àggale ndax nattu yi nga xamante ne sunu borom moom la teg ci ki nga xam ne dafa jóg ngir sàkkoon cër boobu. waaye sëriñ bi ci la xamal yonent bi sallallahu alayhi sallam ci teem ju kawe ci bëgg gi mu bëgg a yeesal sunna Muhammad sallallahu alayhi yéene gi mu am liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ba galgal tubaab yi nga xamante ne ci 1885 ci lañ ameloon seen ndaje bu bag boobu ñu koy wax conférence de Berlin ci biir Allemagne ngir fexe ba songu réew yi néew doole yi rawatina réew Afrique yi pàccoo ko dugal fi seen i jikko dugal fi seenum diine dugal fi seenum njàngale dugal fi seenum njariñ waaye sëriñ bi ci la taxaw fa yéene tubaab yooyu loolu ñu amoon seen yéene ci Afrique fexe ba diine yi lislaam du fi am doole sëriñ ci la taxaw moom di xeex ak ñoom di jihaat ak ñoom ngir seen kàddu ak seen pas-pas mu mën koo génne dugal kaddu lislaam dugal pas-pasu lislaam dugal yarinu lislaam dugal lislaam ci xolu jaam ñi dundal ko ba nga xamante ne képp koo xam ne jóg na ngir dund lislaam dina xam fu muy teg tànkam ci loolu ci la yonent bi sallallahu alayhi salaam sallam ginnaaw bi mu xamalee sëriñ bi ne ko nattu yi diis na ci ko sëriñ bi tontu ci ngorom ci le ko serigne bi tontu ci yittu juma am ci l'islam ne ko ruugi da sàkk ko ba xam lo xamanteni ni kagn la fi nek ak kagn la fi jog waaye lepp lu ruu ji rek jom ji attan nako ci la ko yonente sallallahu alaihi wasallam wax ne man day duma la fekk ci ben yon dila jappale waye waaye dina la xamal waxtu yu natti waré ñew ci yow dina la xamal ne natti yaa ngi ñëw ci yow ci lolu ci le ko sallallahu alaihi wasallam xamal ne dëkk bi nak muy Touba sunu borom moy ki nga xamante moko barkel feeg mi ngi ci biir dëkk bi natt yi di mën a agsi mukk kon faw génn day daal di am fii ci Touba bi mu ko defee ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha génn ci dëkk bu tedd bi dem sanc Mbacké Bari Jolof toog fa di xaar bés bi nga xam ne nag ci la war a génn ngir liggéeyali yàlla liggéeyali yonent bi sallallahu salaam wa sallam liggéeyali taalibe yi liggéeyali mulidi liggéey mbooleem koo xamante ne jóg na نيو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد لي ما لا يفارق الجزل يا من مجئ لك تواجات بزل سادتي لديك وجد في ازل يا من كفاني الهداه ginnaaw jaayante boobu nag kon ci jàkkee Daaru sa fii ci Touba muy bu tedd bi ñu nekk ci la sëriñ bi nag nekk Mbàkke Baari Jolof toog fa di xaar natt yu tàmbali di xaar mu war a jóg nag bés bi nga xam ne suñu borom dogal na mu war a génn ci dëkkam boobu war a liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi boobu nag di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy bés bi nga xam ne sëriñ bi nag génn na ci Mbàkke Baari Jolof wan ginnaaw wan ginnaaw alalam wan ginnaaw léppam fas yéene laxas tukki ci tukki géej gi fas yéene liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene sunu borom fas yéene liggéeyal mboolem juliñ ñi liggéeyal mboolem murit yi ci tukkeem bu tedd boobu boobu nag mooy fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar xam ngeen ne tukki boobu sëriñ bi def na juróom-ñaari at ci àll bi def na juróom-ñaari at ci Gabon bi mu ñibbisee nag muy bés boo xam ne bés bu màgg mu jàppalu ne taalibe yi ñi képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég bés bi bu ñëwatee muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar lépp li mu doon sàkku ci yàlla ci bés bii la ma ko sun borom subhanahu wa taala defale may sàkku ci mbooleem jullit ñi ci mbooleem taalibe yi bés bi bu ñëwatee muy fukki fan ak juróom ci weeru safar nañ ma ciy santale yàlla ci xéewal yi nga xam ne defal na ma ko te jaarale ko ci bés bi sëriñ bi ne nañ ko ciy santale yàlla ci jàngal ko téeréem bu tedd bi di alquranul karim ci defal ko ay salaatu ala nabi ci jàng ay xasida waaye tam ci def ay berne xam ngeen ne bis bi bu ñëwee di fukki fan ak juróom-ñetti yoru safar adduna sépp dañuy bokk dëkkmal benn jubluwaay muy Touba di dëkk bu tedd bi ay million doomu aadama dinañ bokk di daj ci dëkk bi di santale yàlla sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Mustafa man zannani xayra qadimil Mustafa فإنني أخدم بما استفى من زنني خير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما استفى mbokk yi xam ngeen ne këru diine buñ fi dugg fii ci dëkk bi di Touba ñoo fii fi màggal bés bi di fukki fan ak juróom-ñetti keeru safara bés bi itam xam ngeen ne Serigne Mouhamadou Fadal Mbacké moo ko woote fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ngir njaboot bi di dajeeg Serigne si ñuy dénkante ak ñoom di saafante ak ñoom di fàttalante ak ñoom ba tax na mbokk yi dinañ dox dem fi nga xamante ne mooy Touba Taybatul Karim mooy fi nga xam ne fi la Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat di defee màggal ji di ko defee ni ko Serigne Touba diglee di ci def ay bernde di ci jàngul al alquranul karim di ci deflu ay salaatu ala nabi waaye itam di ci dénkante ak mbokki taalibe yi di ci saafante ak mbokki taalibe yi ñuy bàyyeekoo ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw takku ànd ak moom fas yéene làq ngërëmal Serigne Touba fas yéene màggal li nga xamante ne noonu la Serigne Touba digle ñu war koo màggal ndax ci loolu ci la ñuy amee ngërëmam ci loolu yitam ci la ñuy dëppoo ak sunna ndax moom sunna moo ko taxoon a jóg moom la doon yeesal moom la doon liggéeyal tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey Serigne Touba liggéey la boo xam ne day dëppoo ak jamono jamono lu mu dox dox dox dañuy soxla am njàngaleem dañuy soxla am mbindam dañuy soxla itam yar gi nga xamante ne moom la doon yar taalibe yi di leen yar ci diine di leen yar ci lislaam ba tax na bi ñu ñëwee ci dëkk bi bi ñu ñëwee ci juma ji waxtu fajar gis ngeen julli ñëpp taalibe yëpp di yeesal di waajal waxtu wi waaye itam gis ngeen itam ne soxna yi ñi ngi mel ni nga xamante ne noonu la islaam bëgg di tudd yàlla gis ngeen ñi di jàng xaside gis ngeen kenn ku ci nekk yaa ngi def bés bi muy bés si dellu ci yàlla bésu tuub bésu jàng alxuraan bésu jàng xaside bésu ñaan bésu sant lii mooy bésu fukki fan ak juróom-ñett keeru safar fii ci dëkk bu tedd bi di Touba. man lam yakun anniya yarda fal karim radiya anniya ridan الغني صلاة من كرمه يا الخني على الذي دون المراء الخني صلاة من كرمه يا الخني على الذي دون المراء الخني أهزني الباقي من السيتاني هند ممري وفي الأوتاني هازني الباقي من الزيدان إن دم مريا وفي الأوتين عباده ابتدأت بسم الله وهو كفاني ذوي ملايين وجعت كل الأمر وسكوري للمالك الرحمن وشكوري زكى رهيم بنبي رجيم وآله وزاد النجوم بالله فارات النصارى جيولي وخيري قطعا بلا تناول بالله فارات النصارى جيولي وخيري قطعا بلا تناول ginnaw bi ñu ko ci jumaa ji ñoo ngi fi batay Touba ci eh, taybatul karim keur cheikh ahmadou mbàkke maul Hayat. dara ji nak serigne bi mi ko sant ci atum 2008 ba ba legi fi lay amalé magal ko Touba di fukki fan ak juroom ñet ci safar di ci dalal mbooleem julit ñi ak talibé yi ak mbokk yi ak amdi di yi di ko dundalee ni ko Touba diglé ci jàngum alxuraanul karim di def ay salatu ala nabi ci ñagum khassida ci tuddu yalla waaye itam ci def ay waxtaan ci dénkante dëgg ci dénkante itam ak muñ mbokk yi di bàyyee ci biir réew mi ak ci bitim réew di ànd ak sëriñ bi ci bés bi nga xam ne waa àdduna sax dañ ci ànd ak uh, moom ci site internet bi ñu koy topp en direct lépp luy xew ci bés bi ñu mën koo am foofu la ñu nekk di ay mbokki jullit ay mbokki taalibe ne ci bitim réew ci ay réew yu fasantikoo waaye ñu ngi ñoom it ànd ak uh, sëriñ bi ci bis bi ci site internet maalxayaat point bés bi kon di bés yi santale Serigne Touba sunu borom subhaanahu wataala ba tax na kon xol yépp day delluwaat ci yàlla ci bërëb bi ci li nga xamante ne noonu la ñuy màggale màggalu Touba ci liñ fiy dégg ci itam liñ fiy gis waaye itam ci liñ fiy yëkk ba tax na sëriñ bi dina ànd ak mbooloo mi ci gën gaa rafetee anam jiiteel boppam liggéey bi mbokki taalibe yi ànd kook moom. lépp doon lu sell lépp doon it lu dëppoo ak sunna lépp itam doon lu dëppoo ak njàngalem Serigne Touba tax na góor ñi ak jigéen ñi duñu bokk sax bërëb yi nga xamante ne foofu la ñuy dal duñu bokk sax ay bunt yoo xam ne ci lañuy ñuy duggee ak ci la ñuy génnee waaye gis ngeen ne itam njàngum alxuraanul karim li nga xamante ne góor ñi noonu la ñu koy defee noonu itam la ko soxna yi di defee lépp ànd ak sell ànd itam ak sunna ànd itam ak njàngalem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul waaye gis ngeen ni itam ñiy jàng alxuraan ñu ber leen ci benn bërëb ñuy jàng itam nuuru daaree ñi xasida yi Serigne Touba yi ñu ber leen itam ñoom it ci benn bërëb lépp doon lu sell lépp it doon loo xam ne dafa dëppoo ak bëgg-bëgg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul loolu nag du jaaxal kenn ndax jëmm ji nga xam ne moo jiite liggéey bi dafay koo xam ne ci dëgg ak njub ak siraatal mustaqim ku ko dégg ci nga koy dégg ku ko xam ci nga koy xam ndax jaar gi nga xam ne jaar na ko ci Serigne Saliou Mbacké nekk ak moom fukki at ak ñett Serigne Saliou jàngal ko yar ko def ci moom bi nga xamante ne moom lay dund tey di ak njub di ak dëgg di siraatal mustaqim loolu itam di ko nàndal mbooloo mi nga xamante ne ñu ngi dox di sol seen dàll di ñëw ci moom fas yéene ko def seen bunt ci Serigne Touba fas yéene ko def seen bunt ci Yonent bi sallallahu alayhi waaye fas yéene ko def seen buntu itam ci sunu borom. bi ali badrin أسود الكدر نفع لخير الله في الذكر كل زلي képp koo xam ne ñëw nga di jokk ci moom koo waxee say kàddu muy kàddu jaayante kàddu joxe sa bopp sëriñ bi itam dina la jox ay kàddu te kàddu yooyu mën nañ cee jàpp li nga xamante ne dina la ko fàttali wax ne leen ginnaaw bi mu la ko nanguloo ba noppi mu ngi lay digal nga tënku ci ndigalu sunu borom yi mu ngi lay digal itam nga teet tari sunu borom subhaanahu wa taala waaye loolu di ci am waxtu wu ne sëriñ bi di dénkante ak njabootam di fàttalante ak ñoom ci li fi indi ta bàyyi fi be tax na waxtaanam day fess del ak njëriñ day fess del itam ak lèr go xamné képp ku fa tew donte sax mosoo gi sëriñ bi wala nga dégg ay kaddom dina fess xol ba ngay tour ay rankoñ lolu nak kéman la ci kémanu sunu borom yi kéman la ci kémtanu sëriñ Touba yi muy xéewal go xamné sunu borom jagleel ko ay jaamum ci jamono bo xamné li liy nit ki ci yàlla ba du touru boko xolé na waaye sëriñ bi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi sol seen dàll di ñëw ci moom di déglu ay waxtaanam dinañ gis ne ay kàddoom daal day fees xol bay tuur ay ranqooñ waaye loolu nag daf ñuy fàttali li sëriñ Tuubaa waxoon mag ñi ne leen taalibe yi jënduloo leen jàppoo leen ci toolu xare waaye itam donnuloo leen ci seen i bàyyi seen i nawle leen ci diine addiye ji ñu leen di jox bu leen ko bége waaye bu leen bégeel itam ki leen koy jox waaye na ngeen ko delloo ci ba ay rankoñam di tuuru loolu kon gis nañ ko fii yëg nañ ko fii ci góor ak jigéen ci mag ak ndaw sëriñ bi def waxtaan ak ñoom ci yàlla ak yenent bi ak sëriñ Touba ba seen rankoñ di tuuru loolu kon dafay firndeel ne sëriñ bi de moom ma nga fa fa sëriñ Touba bëggoon euh, seex yi teg fa seen tànk mooy di dénkanteeg taalibe yi dëgg di dënkante ak ñoom njuppa mbokk yi kon màggalu Touba fii ci Taybatul Karim waa kër Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat di ko dundale ni nga xam ne noonu la Serigne Touba diglee ñu koy dundalee màggal gi lépp tege ci ak sell tege itam ci ak sellal wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman muxaddamatul amda fi lmasaaya almiftaax صلى وسلم عليه الفتى بآله وسابه كما ملا الأقداح اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سد تكريم وعلى آله وسافي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجعل الأمداد لا إله إلا الله

على نبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجع الختابا تكرما وأنفسا أتابا فخمت خائلا مع امتثاله أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي الخديم مقدمة يلا وصلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد محلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشعير العلمي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل يا من يقول لمسل مرة علي عشرا خطني ربره ولتواصل بشارات الخدر مستهزئا لغير النحو القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل إن قد سميا سل بتسليم بلا انتهاء أني على النبي ذي البهاء وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاي خبلت خلمي وسنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز الصلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والضيور وآلي وصحبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك التاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد عليت زكيات ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم ناف قد سميا سل صلاة قد تخلد البشر مع السلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا والتج أهل بدر الكرام أني خيرا خذ لي المراما والتج عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفه البير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي في مثل مرشدي وبدني سخه وقلبي أرشدي أخا السماء أني بحت بالثمن بلا إقالة أتبت للضمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وابتلي لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال mbokk جسنجين سرين ngeen euh, sëriñ bi moom Euh, yor gëttal bi ko gëttal euh, taalibe yi ci yëg boo xamante ni yëg na leen ko waaye itam yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko seen i waaye itam jataay bi jataayu tudd sunu borom la jataayu jàng alxuraan la jàng xasida muy jataay bu sell loolu yépp kon nekk ay tegtal ci jëmm ji daal ci ak mbaaxam yittewoo gi mu yittewoo defaru ko taalibe yi waaye itam woyof gi nga xamante ne woyof na ko muy ay màndarga di ay jukko yu rafet yoo xam ne Eh, gis nañ ko ci moom mënees na ko seede ci moom te képp itam kuy taqu ak moom di nga gis ne sëriñ bi de jëmm ju woyof la jëmm ju baax la jëmm ju yaatu la jëmm ju yittewoo mbiru taalibe yi la jëmm ju dolli taalibe yi la tudd leen dollee ko jëmm ju sagal taalibe yi la waaye itam jëmm ju leen uuf la ngir jëmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax ànd ak ñoom ci yoonu suñu borom mooy yoonu dëgg di yoonu njub di yoonu siraatul mustaqim لا إله إلا الله لا إله إلا الله la la